comprendre nga loolu moo tax ndax euh, yëpp presque mënuñu wax ay grand combat la ñëpp mënuñoo defandoo open de presse su defee lii nag c'est normal ah open de presse c'est normal mu def ko voilà waaye daal su dimanche ngeen xam ne ah ca déedéet waaye dëkku lambu mais ñu ne Arafas moo ëpp doole contact loo wax ku wax loolu da ngay wax lu neex ndax xamaloo dara guy xamoo fu mu préparé combat xamoo ci lan la nekk ñi dëgër fit ñooy wax loolu waaye guy gi mi ngi ci loo xam di liggéey xamaluñ ko dara kuy wax da ngay wax la ba de école jii ñoo am nañ fulla doo xam ne ak boo xam ne suñ ko gisul woon mu nekk ci dara su boobaa du fi wax loolu pour man ay soxor la waaw waaye kan ma wax loolu loolu xam nga loolu ay wax ko guy gi bis bu toll nii waaw muy may xale bi sens waaw ñu taxaw naa guy parewul xanaa léegi loolu mooy kon guy gi gën a làmb ji xanaa loolu mooy kon guy gi dafa bëgg a gën làmb ji guy gi gir bëri ku mel ne Ada Fass muy xale bu nekk ci yoon mu di ko may sens ñu naan guy gi parewul nan wax wax mu jaanu maanaa nan wax wax mu yenu maanaa mais keroog dafa demeewul noonu hmm. ah, waxtaan nan am na lu ma wax waaw euh, loolu soo ko gisee dafa am nu mu meloon ak nas ku ne xam guy gi digganteem ak nas commencement ba ñuy door ba tey guy gi ak fii mu ak am lu xaw a dox seen diggante affaire saytaane yi nga xam ni ñi xam dañuy wër di jaxase rek jaxase rek jaxase rek bu gën a yàq seen diggante loolu moo tax xam naa émission bi émission bi émission bi daal di jóg waaye guy gi koo xool xam ne góor yàlla la ndaanaan la moom la ñuy woowee borom simpi combat dernière chance mën nga ko mooy dernière chance. lan mooy dernière chance. lan mooy dernière chance. dernière mooy dernière chance. que le fait mooy dernière chance. Arafas mu ngi arrête. ah arrête naa ay dernière chance. yow ah. eh, guy gi yabuñu doful dina jàpp ko. Mm. xam na li koy xaar. ñun ñu bàyyi suñuy te nekk ay magum jëm topp ci moom ci am bu dégg ba cëg. ah suñu gisul woon lu leer duñ topp ci ginnaawam. d'accord ñun ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda mais mais bis dafa am fu ñu ko teg te moom dafa am fu ko teg. lii dimbal leen. lii lii jaar waaye. lii dafa war a ñëw bëre pour wane boppam. ndax su deful loolu lan lay def leneen. su deful loolu lan lay wane. aada nee na dafa ndànk dama lay expliqué ay dàq essai. aada lu ko neex wax adversaire la. am na fait droit lu ko neex wax. waaye ñun guy gi yàbbu ñu. Hmm. guy gi yàbbu ñu. xam na li koy xaar. mais mais mais léegi ñu ñëw ne da ngeen a ñëw pour naxante ñëw leen pour bis bi lu mu laaj dañ koy def incha allah rabi bis bi lu mu laaj de guy gi dina ko def guy gi yabuñu. Hmm. du am bis bu toll nii. mais guy gi sax ñeme na samp jaaga ak Ada guy gi sax ñeme na samp jaaga dimbal leen affaire saytaan yi ngeen daw ay. ah waaye booy booy xeex day ah, bëre. ah waaw. bëreeg Reug Reug. waaw bëreeg Siteu. waaw bëreeg Amaneex. waaw bëreeg Nees. waaw bëreeg Basoka. mais eh, sa xale bi ñooñu la. lan eh, ngay jiit booy bi de ay j'arrête waay. sa xale bi ñooñu la. arrête nga xale bi ñooñu la. booy bàyyi leen wax yooyu ngeen di wax waay yéen bàyyi seen affaire naa fekk. non non affaire naa fekk la. affaire naa fekk la. aada doo xool la ngeen di. guy gi mu toll mu naan ko est-ce que euh, sant a jaaga. waaw ah. sant jaaga. ah, ah ñeme. c'est normal dafa lekk avance bu lekk sa avance ñeme la. ku lekk sa avance ñeme la dafa lekk avance moo tax bu ñeme ko. Ah. voilà loolu dong la. mais aada nee na bu leetoo ak moom nee na bu amee une hmm. ci moom lay dépendre nee na da koy duma daan ko wan. doo daan wax c'est normal am na fait droit adversaire la daan lekk avance am neex waaye su la la 31 ba yàlla yóbbu ñu teg jàmm. Hmm. ah cam di ngeen gis guy bu bees. guy guy gi ñu. is is is baag waay ah. is ah. ne li koy daan fii la nekk mu ne li koy. li koy daan xalaatam la wax rek. Ah. a ki jaxase xelam. bëgg a dox ci maay na. <laughs> waaye ay mbay kër joor ak joor kër sàmm nga li ngeen. Mm. su la 31 di ngeen gis lu bees sax. Mm. ba xale yi ñëw ubbi porte bi. Mm. seen mag ñëw guy gi war a ñëw. Ah, euh, ma ne la Guédiawaye fi la lamb fekk baax. waa Fass dañoo xew. waaw d'accord Guédiawaye laa fi la lamb fekk baax. Hmm. waaye bàyyi leen wax la bàyyi leen naxante yi waay. Ah. bàyyi leen yi waay. Ah. wax lu am. mais tey leen wax dëgg waay. point de wax loolu da ngay wax loo neex ku wax loolu da ngay wax loo neex dégg nga bi moo serré. yëpp ay grand combat la. te ñëpp mënuñoo defandoo open de presse. ñëpp mënuñoo defandoo open de presse.

lan la ñuy jot xalaat lan la ñuy xalaat lan la ñuy xalaat lan la ñuy que nekkul guy gi. point de presse moom ñi koy taw du ko fi mujjee. ok mais kon sax. Ah, ah mais Ada Fass am ay éléments géejewaay ay éléments géejewaay éléments yooyu dañuy am fu ñuy yem. Ah. gis nga géejewaay. waaw ah, guy gee borom nag. ah ante dëgg. guy gee borom. guy gi Fass am na fay supporter. mais Ada nee na ñàkk a wóolu a moom moo. non loolu lépp waxin la. non Ada daal lu ko neex wax. waaye daal la xam ne am na bis. waaw la 31 lay ne am na bis. macha allah yow de ñun ñoo koy feesal géej waaye koy feesal. Ah. fu bébé Ama di bëre. Ah. xale boobu. Ah. naanaan boobu bébé Ama. bu Siteu ñëw. ah mbiru jeunesse bi. bu Siteu. ah papa booy jënd ñëw màcc màcc deux. mais Fatou bëre may ma tuuti. ak gàkko doy ñëw. gàkko doy ay gàkko ay gàkko eh. a ñëw. Eh. ah ndigal ñëw <laughs> ah seen a war a ñëw. ah tëj porte bi. xale yi war ko ubbi porte bi. mais doomu ah. na ni ah. Guédiawaye moo xale. Gris Bordeaux moo fi oh, ah, d'accord ñaari Ndakaaru d'accord. ñun daal Baye Ndiaye ñoo ngi koy gërëm di ko sant. fàttewul goxam. wooye na ne Guédiawaye la dëkk. Mm. wooye na ne Guédiawaye la am. tëgg na combat boole set doomu Géejawaay Baye Ndiaye gàcce ngalaama li nga bëgg ci bis bi yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal hmm. fàtte fàtte woo sa gox hmm. ma antaan sa da ngay bëgg sa gox antaan sa ay Balla Gaye de la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hmm. borom le 21 ku yebu ne ko jàkk te koo piis away away away ah ma ne ku yebu ne ko jàkk te koo piis moom daan sa jigi waaw waaw le 21 c'est normal comme di def tafatin la de ah. sama yoon nekk. bu romb yoo <laughs> tafatin daa yuuf rek waaye la géejawaay il faut mu yow mënut a ñàkk xam nga tax ah. géejawaay mooy dëkku làmb. Ah. Ah. nga ne waxoo dëgg. waaye yéen ay saytaane ngeen. ndax loolu ngeen chaque jour ci ngeen di dox loolu ngeen bëgg. mi ngi fi. fi. waaw booy gis nga ma xam bàyyi leen seen affaire saytaane waaye booy ay saytaane ngeen ay dafay àggen. mi ngi la. waaye bàyyi leen li ngeen def waaye bàyyi leen seen affaire yi ngeen def affaire u naafeq yi ngeen def affaire u seytaan yi ngeen fii jàmm moo mës a am géejawaay jàmm moo fi mës a am maye la suñu jógee le 30 bi waaw Pam Mbaye day ñëw le 6 Maga Seck ñëw waaw Maga Seck tam lay ñëw. waaw Aliou Seye Junior Maga Seck ñëw Aliou Seye Junior Papa Dia. Mm. comprendre la le 21. ah Sane Sadio gi ñëw. nan nan nga ko tuddee le 21 ah, am na. Ah, Ah, xam ngeen ko jarul laajte. mais yuuxu bi Tafatine ko doon Tafatine moo doon yuuxu bi. da may da may bu leen ma ban ba rek. Tafatine moo doon yuuxu bi à ah, Fadel. dégg moo doon yuuxu. Balla Gaye 2. waaw ah. mooy Sénégal. waaw Balla Gaye 2 mooy adduna bi. Balla Gaye 2 mooy diaspora bi. Hmm. bañ bañ nangu yàlla la. su signaté mu neex su tuusee mu neex su bëree mu neex kon nag nan ko nangu su waxee su waxee signaté rek jeexal na yow mu neex nan na ko jàkk te bañ koo piis